wurare Karamba jaaji faare wurare Karamba jine digi Karamba len meccine jine Karamba mawre wara wurare Karamba ilahi ya wur Kaliya kuja kuna asabu. Kwa kadera, kwa porta bosa. nga Amor, Fatma, Nona, Nona,

Jinin fa jinin bai ba karamba. Ta zaho. Kawai. Komo sama malade. Mhm. ndax Mboro ko laa jógee. Mboro Mboro laa a Mboro nga jógee indi sama turandoo. Mhm. parce que bi mu nekkee Mboro daal maanaam mu turam la doon tudd. Mhm. bu nu waxee turam turu Karamba la doon tudd. bu nu waxee mu ne mu ne Karamba di joxoñ baaraam bi. après bi mu waxee loolu mu am yaakaar trop ni bu ñu ko si moom daal dana tene waaye bi mu indee si moom tamit far yàlla gis nañ si jàmm daal. parce que wax naa ak moom daal wax ju am nañ si yaakaar daal pour mu tane. waaw daal moom la doon tuddal ak tamit li ñu yaakaaroon sama ko tey. gis ngeen a ci daal waaw gis nañ ko tey. Euh, booba ba mu feebaree léegi ñaata sëriñ ah, bi mu maanaam bu dee dem sëriñ gaa barawal waaye daal dispensaire nag daan na ko yóbbul moom ay dispensaire daf ko daan daaneel bu ñu ko yóbbu dispensaire mu toog tuuti maanaam mu jàppaat ko. bii nag maanaam dafa xaw dëgër maanaam bii dafa naan soroo ko bii dafa jóge. waaye daal bi mu commencé tudd karama daal si noo jël man sama maj yi bàyyi ba ñaan nuy ndëgg daal li si gisal maanaam tane na daal parce que daanaka ñun ñi boobalee waxul xa tur mm-hmm. xamul woon xameewul te léegi daal xàmmee na ma may turandoo. te léegi ba ama avant moo ñëw si karamba maanaam am na lu ma trois jours. Mhm. maanaam daanaka daal xàmmeewuñu mhm. mais tey daal xàmmee nañu. parce que taxaw naa daal ni ka lu ma tudd mënuma papa Insa kii ma nag kii lu ma bu dul loo sax amoon nañu benn rawante boo xam ni maanaam ñëwoon na fi waa gaal waaw rawante gaal yi man da waaw mooy seen waaw waaw yàlla def te maanaam li mu ñaanal daal gis nañu ko noonu waa Dakar yi mhm. waaw xar nañu teg seen bët benn ngoon waaw loolu daal waxoon na ko ndax waxoon na ne maanaam bi gaal yi suuba daal mhm. daanaam doo mhm. benn bi ne da Sénégal leer waaye tam kontaanoon daal yàlla yàlla def jàmm rek incha allah tey lan ngay wax Sénégal ak ah, diaspora maanaam li ma ci wax mooy maanaam képp ku am sa malade rek maanaam malade moom maanaam da ngay rek waaye tamit

yàlla yàlla def jàmm rek. ak mboolem jullit. Hmm. ah Marietou. Ah, fan nga jógee Marietou. Bargny Géej. Bargny Géej. waaw nga di woon fa malade. waaw ah, kañ nga commencé ah, la am si tey waaw si tey. amoon a mu andi ko fi tey ci Karamba. waaw lu tax nga dégg Karamba nga ñëw fii. waaw dama dégg man na faj ma gis tam ñi faj muy tare car macha allah. te fu ne dem naa fa wax dëgg yàlla. fu ne dem naa fa wax yàlla di fay ay xaalis bu bari waa si wax dëgg yàlla mais ma ko déggee tam gis tamit yi nga xamante la faj ma yaakaar ñëw si moom ne bu ma ñëwee sama malade yàlla mën na si def jàmm ak salaam mu jog si jàmm ak salaam. bi nga ñëwee ci moom jaar nga euh, lan nga gis ak sëriñ nga doon jaar. waaw mu ngi tane mu ngi tane macha allah mu ngi tane wax dëgg yàlla mu ngi tane bu baax. nga dul ñëwee ci karamba daal tane bu baax a baax. waaw waaw waaw mu ngi tane bu baax macha allah. mu ngi tane nga xam ne tey eh, ñu am malade yoo xam ne fay nañ ay gis karamba tey nan la ngeen. ñu ñëw si karamba rek mu defal leen xéewal loo yor jox ko bu faj ngir yàlla te yàlla rek tax moo ko tax a jox macha allah man bi ma ñëwee si moom daal wax dëgg yàlla réeju ma si dara ah ma ngi si gis tan ndànk ndànk rek maa ngi ñëw di def samay rendez-vous macha allah ah barayul de barayul de de yombul. Mm. ñu de def ay rendez-vous ngay dem ngay jël ay traitement ay sangat moom noonu laa daa def di dem fu ne di jël ay sangat di def ay sangat di def ay sangat mais bi ma ñëwee moom trois ñetti semaine daal laa am si moom maa ngi gis changement ndànk ndànk macha allah. dama man man mii di yaayam tollu ma sol mbuba léegi ku ma naanu ma gis nga fu may dem lu ma neex la may sol dem parce que tiit si moom. wax dëgg yàlla. waaw ba sooba yàlla waaw yàlla moom. Euh, sénégalais yi nekk Dakola beeg ñëpp am ay malade tey war a dem ci sëriñ leen naxal lan ngeen di wax. ñëw rek si karamba ñu tane jàmm ak salaam yàlla fëgg seen bopp ak mbooleem jullit ak ku fi ñëw yàlla na yàlla may wér ak wér la ak foo mante ne yàlla na yàlla fëgg sa bopp. yàlla na ko yàlla di ta dexal ko mbooleem doomu aadama yëpp yàlla baax na. jërëjëf yàlla baax na merci. nga fee yow rek tuuti interview rek parce que macha allah quoi ñetti témoignage lañ soxla rek témoignage rek Euh, témoignage rek s'il te plaît li nga gis ci Karamba ak lan moo tax boobu léegi nga ñëw ci Karamba waaw mooy loolu lii bépp mooy loolu soxna na nga dem ñu ngi lay ziar sama sister comme jigéen sama la. Maram Fall. Maram Fall tey ñu ñu fekk fii ci Mbour Petite Côte nga ñëwoon ci euh, Karamba tey macha allah animaire ba sax baax na macha allah te boobu léegi talu dara lan ngay sànni message ci Karamba ak euh, malade ñu moom na faj waa ñoo ngi kontaan si moom trop macha allah. bi changement nga gis ci moom sa sa malade bi ban mu ngi tane mu ngi tane bu baax. sant yàlla. lan ngay wax sénégalais ñu ñëw rek ndax. daa mel kontaan nga parce jërëjëf dafa kontaan ba mënul wax macha allah xam naa ñu jàll ci keneen rek gis nga macha allah eh, yaayam la andi mu ngi noonu malaat baa ngi noonu macha allah tane na moom sax mu ngi naan baax na macha allah te bi muy dugg si yaakaar naa xameewul eh, jonjog yor eh, fii nag la amee saa su rek fii ci Karamba la mbur Petite Côte dama naan Karamba du sëriñ phénomène la saa su li may wax rek su saa su ne mooy le king. mu ngi noonu macha allah taxaw ak euh, li nga xam ne mooy clients yi li nga xam ne essan yi mooy euh, ndeysaan mu ngi noonu di TikTok ndeysaan. client bi ñëw sa kër nga si amalu ko njariñ nga sulee si suuf si amalu ko njariñ client bi ñëw sa kër ngay taxaw di tàkk amalu ko njariñ di gisal ngeen ko seen bopp depuis ma depart kër ga ñaata nit laa dimbali dama bëgg yéen sénégalais yi ngeen yeewu yéen sénégalais yi ngeen yeewu képp bépp internet ku fi taxaw ni Karamba xamul dara nee leen ko karam nay def li seen baay di def muy kan Karamba kan mooy Karamba mooy la messi de jinne le roi des djinns Karamba le messi des djinns le roi des djinns kontaan naa sama xol bi sedd na guy yéen waa live en direct ba beneen yoon. pare muy def rek li nga xam ne mooy euh, malade yi ñu nekk ci monde bi ak ñu nekk Sénégal yëpp saa su ne noonu lay def muy live. ñebe mais lan mooy ñebe. ñebe façon. daa mooy ñebe. lan ndambe la. ndambe boo ko lekkee looy def bu dee xale nañ dara du xew ñebe.